la la maa ngi tudd Cheikh André Diall euh, nekk ci rakk sëriñ bi yore lu jëm organisation ak euh, communication lépp lu jëm ci image ci kër gi ba pare di di di taalibe itam ci kër gi. ndigal day ñaari mag la ñoo déyante woon muy sëriñ Touba ak Mamadou Diall ci njaareem sëriñ Touba moo woon Mamadou Diall jox ko ndigalul muy togg ndogu déyaalem ñaari mag la depuis ba fa jógee ba léegi nag euh, ci ci ay super ay ay ay kii la la commencé woon ay euh, ay ginnaaw. demoon na Serigne Touba waxoon na borom kër gi di Mamadou Diall bis boo demee ba nga xam ne gisagoo ma gisatoo ma sax. mën nga jël liggéey bi muy togg ndogu muy def sa moom bu def ko muy mu di sëb sëriñ waaw loolu moom lu mu ko lu mu ko lu mu ko kii woon ndax jamono day dox te lu yokkuwul rek ma ngay wàññeeku ndax euh, sëriñ tuba dafa waxoon maam jaal ca jataayam boobu jataayam bu siiw boobu borom xam-xam yi di nettali euh, ni ko Rijaal samay wax gantu na ñaar gantu na yokk gantu na wàññ waaye boo tàmbalee fa ma yem tàmbalee yam fa ma yem nopp bu mu dugg xolu borom nu ca la ko waxoon ne ko nag samay mbir Rijaal lu mujj ñëw ëpp doole ce loolu itam toujours liggéey bi dañ ko ci gis ndax xam nañ ni nit ñu baax ñu nga gis fii yëpp dañuy am pas-pasu bu weeru koor yu ñëwee ñuy def lu mel ni moo xam ñu ko jébbal seen kilifa wala ñu koy jébbal seen i seen i seen i seen i seen ñuy woo seen xarit di leen invité te ñooñu amuñu fi ndigal ñun nag bu dee day ndigal loo xamante dañ ko jëlee ci Serigne Touba Serigne Touba woo woote woowoon maam di jàll xamal ko ni ko del togg ay ndogu di ma andi xamaloon itam woote woon ci njaareem ci sëñ Malick Ndiaye xamaloon koy ne ko comme bis bii tey ci fajar la la la la ko ne woon bu ñu bu ñu ku desal xat desu xat na nga ko ëndi jaal ndax wóorloo wuñ ko dañ koy liggéeyloo loolu nag moo dox ba agsi fii ci njaboot bi képp ku fi mas a jaar rek ci loolu nga nekk liggéey boobu nag moom lañ sumb nii di ko liggéey di ko yët taawam bii di ko yët Serigne Serigne Moustapha Mohamed mi nga xamante ne mooy suñu bunt ci sëriñ Touba mooy suñu bunt itam ci yoonu murit dara loolu dañu xam nga euh, euh, yoon wi de suñ borom dañoo boole ay ñu am xir lool am pasteef lool bëgg sëñ bi lool ca ndaw nag bu yooyu dajee ci moom ca dajee nekkut ak ma mu koy xelal mën naa jëfandikoo doole wala bëgg-bëggam yooyu yëpp dina war na dem ba indi affaire violence ca ndog yi ñuy togg dañ koy togg di ko terale ñu wor kon nag loolu moo tax ñuy bañ ñuy daje kenn ku wóorut di ko toroxal wala ñu koy def leneen ndax toujours da ngay ci yoon wi bu ñuy dem da ngay gis léeg-léeg mbooloo fu mu daje da gis ñu ñu ñu ñu yeewu gis ñu ñu rambax gis ñu dal gis ñu teey waaye loolu yëpp ñun dañ leen di teel a cadré wax ak ñoom ba nga xamante ni bu ñu demoon ba gis benn situation bu mel noonu itam seen xel dem ci wax yi ñu leen wax. loolu nag du neex a xayma xam naa daal li ma xam mooy bis bu set dinañ defar kumte lu ne dinañ defar gileem gileem yi nag euh, ay bu ci xar ñëwee dinañ ko ci def bu ci ay ginaar ñëwee dinañ ko ci def bis bu set itam dinañ defar nag nag yi itam. bu xar ñëwee ñuy dolli ci bu ginaar ñëwee mu mën a toll dañ ci yokk ci liggéey boo xamante ne nii da nga mën a xayma ni nii lay toll ndax ñii nga gis ci waañu ñu soxna yi nga gis euh, ñoom ci seen wàll bopp rek kenn ku nekk sa cin da ngay dem di jaayante ji di wuti di andi di yokk sa cin nga gis benn taalib boo xamante ne day toog mu yàgg xemeem liggéey bi nga gis wala mbokk wala xarit wala kii xemeem daal di yenu am xam kenn rek ci waañ bi jox ci liggéey bi bokkut ak yi nga xamante dafay jaar ci ñun bokkut ak yi nga sëñ bi bokkut ak yi nga xamante day yi moo tax liggéey bi nekk loo xam ñun daal li ñuy def dañuy tàmbali waaye lépp lu ñëw rek dañ koy def ci liggéey bi li ñuy ni ñuy doxee daal suñu tay ju ne dina gàccaal suñu démb lu ñu def tay nii bu subaa dinañ ko incha allah ba weeru xam nga ñun yoon leen murid da am nu tënkoo ñun Serigne Moustapha Mohamed mu suñ dak son loo mooy suñu bunt liggéey bi ñu liggéey moom lañ koy jébbal suñu demee teg na foofu ay jëwrin bu ngeen demee da ngeen leen gis jëwrin yoo xamante ne nii saa bu ñu ñëwee eh, bool ñu yor dañ koy yàq yi ci des itam dina am ci leen ci ci ñi ñu àndal ñu leen yóbbu leen ko place sàngam ci kër kilifa yi yii ñu leen yóbbu yi ñu leen yóbbu fa yee ci des ñañ fekk ñu soxla ko ñooñu ñoo koy ñoom ñoom ñoom ñoo koy séddale waaye ñun bu ñu demee dañ koy jébbal sëriñ eh, jëwrin yi ñu sëriñ bi kii rek ñoom ñoo xam ne ñu koy distribuer may eh, wax rek taalibe yi mooy ñun moom suñ mbir ñett la rek ñaq ak ñukk ak ñuqi ñaq ak ñukk ak ñuqi nag mooy lii ñu nekk nii tey ndax dañoo war a liggéey ba am comme ni ñu faral di waxee ku liggéey nag da nga ñaq li nga am itam nga génn ko mooy ñuq gi buñ ku génnee defar ko ba mel na war a mel ñu ñukk daw yët ko sëñ mooy li ñuy war a def li ci de leneen li ñu ciy dox mooy nañu tënk rek ci ndigal ñaanal itam ñi nga xamante ne dañoo suñu dafa dafa yeew seen biir yeew seen gémmiñ ñuy woor lépp lu ñu wut ci koor gi ñu am ñun ñi nga xamante ne sëriñ bi dañoo féetlu la mbirim xidma lépp lu ñu jëlee ci liggéey bi ñu bokk ñëpp kenn bañ ci ëppale kenn